bokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën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 نعمة ربك بمجنون أي زمن لا من جولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أي زمن لا من جولي na dëkk bu sell bi di euh, Touba euh, jëm ci li nga xamante ni mooy wooteef sëñ bi ci màggal gi édition 2022 euh, comme ni ñu ko defee saa su nekk rek bu màggal gi yegsee Tawfekh Production ñëw ci li nga xamante ni moom mooy événement bu mag bi leen lépp loo xamante ni moom mooy ñeel ci événement bu mag bi jëm ci li nga xamante ni ñooy mbokk taalibe yi jëm ci kër kilifa yi waaye jëm tamit ci li nga xamante ni loolu la sëñ bi digle mooy ñu ñëw santale ko yàlla ci bis bi loolu waral nag ñu wàcce fi nga xamante ni mooy ci jumaa ji ngir mën leen a wan euh, effervescence li nga xamante ni moom mooy taalibe yi engouement bi am ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw di ziar seen bërëb yu sell bi lu ci mel ne jumaa ji lu ci mel nga xamante ni ñoo nekk euh, ci biir euh, jumaa ji xanaa rek dinañ leen dëgtal rek nit yoo xamante ni dinañ wax seen gis-gis ndax la ñuy dundee li nga xamante ni moom mooy màggal gi waaye acte ngi li nga xamante ni la ñuy doxalee ci lu jëm ci wàllu màggal gi donc sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax tur bi naka la tur bi Abdou la Abdou Thiam fan nga jógee. man Dakar. Dakar nga jóge waaw donc naka nga gisee tey ba nga wàccee tey ci li nga xamante ne moom mooy euh, dëkk bi euh, li nga xamante ne moom mooy dëkk bi naka nga gisee euh, lii di màggal bi ak mbooloom ni fi ñëwee. waaw màggal moom damay wax rek ñu ngi delloo ziar bu wér sant sant Serigne Touba parce que ba mu wàccee fii nii gis naa fii mooy loolu quoi nee na mais mais delloo ziar bu wér daal ñu ngi sant daal. Euh, mu mel ne sëñ bi am na ay ndigal yoo xamante ne joxe na ko ngir euh, ñu mën see tënku lu mel ne euh, téléphone portable yi nga xamante ni xale dañ koy faral di yor jël ay photo yu ni mel ndax yéen ñi a ngi bàyyi xel joxe na ko waaw ñu ngi si baax a baax ñu ngi xel bu baax a baax rek ndax ndax yow defagoo lu mel wala gisagoo kenn koo xamante ni mi ngi koy def nga koy ñaax ne ko sëñ bi léegi lii dafay tere yooyu non gisagoo ma rek mais maa ngi koy dégg depuis mais maa ngi koy dégg bu baax maa koy dégg kay voilà donc mu euh, mel ne rek dañuy wëy rek continuer euh, jël beneen mbokk taalibe rek koo xamante ne mi ngi jógee euh, fi nga xamante ne moom mooy mbokk taalibe sëñ bi tur bi naka la maa ngi tudd Mbaye Kane Mbaye fan nga jógee maa ngi jógee dakaar donc nga jógee Dakar ñëw màggal si donc naka nga gisee ren li nga xamante ne moom mooy màggal gi ak mbooloo mi ni ñu see waaw ñu ngi sant yàlla bu wér a wér di sant sëñ Touba di sant suñu wasila muy sëriñ bi ñu ngi kontaan ci bis bi ci 18 safar ñuy daje fi ñun ñëpp ci bis bi nga xam ne sëñ bi mu ngi ne woon nañ ko euh, bu ñëwee saa bu ñëwee rek nañ ko jàppale ci sant yàlla suñu borom bu wér a wér a wér waaw. yow nga gisee mbooloo mi tey mu mel jokk ci daa am ci mbooloo mi noo ko gisee. waaw macha allah macha allah ñu ngi sant rek di xam ne yoonu murid moom amul tànk ginnaaw waaw tànk kanam rek la am parce que chaque année rek. ñu ngi nemmeeku ne day nit ñi dañuy gën a teew kon euh, duñ def lu dul di sant rek di ñaan lépp fi ñaan rek mu doon ay taw feex daal. Euh, ban message ngeen lancé ñeen ndaw yi xamante ne parce que duñu faral di euh, tënku ci ndigal message ba ngeen ngeen lancé. ah di lancé message rek de ne ñun murit ñun ci ndigal lañ ñu xamee ñun boo dee yëpp taalibe da ngay déglu ndigal parce ndigal moo mooy lépp parce nit moom da ngay mbosi la su la digalee nga def su la teree nga bàyyi. kon nañuy góor rek di wéyee ndigal kon que ndigal wàcc na sëñ bi joxe na ay ndigal nañu fexe daal euh, ñu teewlu ko rek waaw. jërëjëf jërëjëf kon ñu jël beneen beneen mbokk taalibe rek. daal di koy laaj moom tamit naka lay euh, dundee ak ban dëkk la jógee sëñ bi tur bi naka la. waaw man maa ngi tudd Alhaji Guèye jógee Mbour. di sant yàlla bu wér a wér moom mi ñu jagleel sëñ bi. ba nga ñëwee gis tey mbooloo mi mu mel ne mbooloo bi dafay yokk bu baax a baax a baax euh, nan nan nga ko gisee. waaw kontaan rek kontaan di xam ne yoonu murit moom dara yomb ko ndax sëriñ bi liggéeyal na yàlla lu ëpp lii yaakaar naa ne lu ñu si def lu ne dolli waat la rek ndax liggéeyu sëñ bi si boromam yaakaar naa ne fu koy waaye nattu rek weesu na ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu jagleelee sëriñ Touba jagleel ñu itam ñu mën a fekkee bis bii ndax am na ñoo xam ne bëri na ñoo xam ne fekke woon nañ ko daaw te fekke wuñ ko ren ñu leen ñu nekk ay ndaw bëgg sëñ bi fekkee ko daaw dellu fekkee waat ko ren kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax yàlla nañ ko fekkee ay ati ati ati ati rek voilà jërëjëf ñu wëy rek jël beneen mbokk taalibe rek euh, moom tamit bu euh, mel ne euh, Dakar na jógee sëñ bi tur bi naka la waaw maa ngi char bu wér a wér maa ngi tudd Mouhamed Fall ñu koy wax Ahmed Baye Fall quoi Ahmed Baye Fall donc yéen ñi nga xamante mën nañu ne yéen bu ñu nee dañuy xaar ñi nga xamante ñooy Baye Fall yi donc ren ba nga ñëwee gis mbooloo bi ni ñu mel dañoo ànd ak xaacu donc uh-huh. noo nooy dundee loolu waaw mais gannaaw bi ñu sant yàlla julli si suñu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu ngi leen di jaajëfal si liggéey bu rafet bi ngeen di def am na solo waaw di leen wax màggal gi taw féexe na loolu macha allah parce que euh, boo ñëwee rek da gis beneen xaar kanam ci màggal gi parce que màggal moom chaque année boo ñëwee gis si leneen lu yees loo xam ni gisoo ko woon yoonu sëñ Tuubaa nag moo demee noonu waaw chaque fois rek day gën a am ay tànki kanam. maanaam ma tey jii boo xoolee dafa mel ni tey jii sax mooy màggal bi parce que boo gisee si nit ñeeg xéwal yeeg fépp ñun bi ñu jugee Jurbel ba Dakar fii foo jaar gaay ak lay gàttandoo ay teraanga lépp rek ngir bésu sëñ Tuubaa bi waaw di ñaan nag suñu borom may ñu ñu yeggalee si màggal gi si jàmm delluwaat si njaboot gi si jàmm lépp lu luñ fi nangu ñu fi ñaan euh, yàlla na ko suñu borom nangu yàlla nangul ñu nag suñu màggal waaw ñu ngi koy ñaan baax baax di ñaanal nag sëñ Muntaxa di ko ñaanal bu wér wér yàlla yokk ay fanam wéral ay cëram voilà donc dégg ngeen li nga xamante ni euh, talibé wax nañ ko nga gis ne mbooloo mi ñu di ñëw fi nga xamante ni moom mooy euh, biir Touba jubal ci fi nga xamante mooy jumaa ji xanaa ngeen ñu topp rek leen li nga xamante ni moo fi am ci ambiance aux alentours moom mooy grande mosquée bu Touba bi euh, fi nga xamante ni mooy Tawfekh Production jërë ngeen bu mel ne ñu ci watu rang bi nga xamante moom moo war a dugg ci biir jumaa ji ngir ziar bërëb yu yi nga xamante ñoo fi nekk dañuy daal di jël lekk benn mbokk talibé daal koy laaj moom aussi naka lay dundee li nga xamante a ñu ngi delloo bu baax. Ah, bi naka la ak ban dëkk nga jógee. Basirou Bousso la. foo jógee. Touba Mouride Ñambaat. donc nga ñëw di ziar si bërëbu sell yi donc ba nga ñëwee euh, tey ci li nga xamante ni moom mooy Touba naka nga gisee euh, mbooloo mi ak euh, ni ñu àndeek li nga xamante ni moom mooy Pastef ak yu mel. waaw ànd ak mbégte rek te di doole di sant ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. ñu jaay ko sori ñu ñaan yàlla ñu ak te delluwaat jàmm ñu gis ne rang bi métti na waaye teewul mbokk taalibe ñi ngi ngi ñi ngi ànd ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy Pastef donc yow nan nga gisee mbokk taalibe bu mel ne euh, chaque année mbooloo mi dañuy gën di yokk waaw rek ak li nga xamante ni moom la bi suñu mag bi jëf waaw loolu dong moom moom moo leen moo moo solo quoi parce que sëñ bi def na loo xamante ni nit ñi mënuñ ko koo fay boo gisee jàmm ji yëpp moom moo ko fenn di xewel bi yëpp moom moo ko fenn di ñaar at ngeen ngay màggal donc ndax gis nga différence màggalu daaw ak màggalu ren euh, ci wàllu mbooloo meek ak ni nga xamante ni noonu la mbi demee. déedéet moom chaque année nii lay demee day bëri nit rek mooy loolu boo euh, amee benn loo xamante ne da nga koy ñaax sa mbokk soxna yi ñi nga xamante ne ñëw ju màggal si ci euh, li sëñ bi digle mooy muuru yi solu jot yi ban message nga leen di xanaa ñu sol yu jot rek comme ni ko sëriñ bi diglee ñuy sol yu jot di muuru maa ngi jógee Thiès. donc nga ñëw Thiès ñëw li nga xamante ne mooy màggal bi ñaar at ci ren ngay màggal. waaw ça fait cinq ans mooy màggal. cinq ans ngay màggal donc ban. Euh, at yi la ñëw ak at ren bi ndax gis nga évolution ci li nga xamante ne mooy côté màggal bi côté ambiance côté engouement tànn bi. waaw macha allah moom màggal gi at bu jot moom maanaam day gën a yokk bu fekkoon ne mën naa ne at bu jot daal day yokk laa laa mën a wax. amul benn at boo xam ne rek naan màggal gi nit ñi dañoo wàññeeku mala à chaque fois nit ñi dañuy gën a am patience ak ak ñëw ci màggal mel na sëñ bi am na ren ji ndigal loo xam joxe na ko muy euh, utilisation téléphone yeeg yu mel ci biir jumaa ndax yéen taalibe yi pare euh, pare ngeen ngir bàyyi xel ndigaloo nga xamante nga xam ne joxe nañ ko ci jumaa ji moom ñu ngi koy respecté bu baax a baax damay soññ bépp taalibe boo xam ne jot nga ci ndigal boobu rek nga jëfee ko ni mu waree bañ a am problème ban message ngay ñaax sa mbokk jigéen ñi ci wàllu colin beeg yu mel waaw maa ngi ñaa wax sama mbokku jigéen ñi ñu sol lu yiw sol lu jot comme man macha allah na wàcc teg kaala seen bopp bi soog a dugg ci jumaa ji man maa ngi jóge Mbour. Mbour nga jóge. waaw donc ñaata at ci ren màggal si. man lii moo def deux ans. deux ans ngay waaw donc ndax ba nga ñëwee daaw ak ren ndax gis nga ci euh, changement ci côté euh, euh, li nga xamante ne moom mooy événement bi engouement wu taalibe gi ni mel. waaw am na changement bu baax kay soo ko gisee kay nga xam ne daaw ak ren mi wuute na. donc ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu ndigal yi nga xamante ne sëñ bi joxe na ko ren euh, jëm ci euh, comportement taalibe yi euh, téléphone yi yeeg yu mel ndax yéen ñi nga yi nga xamante ne ñu wax ñun ñoo lu ñuy digle ñoom ñu ngi koy def ci wàllu solin beeg yu mel ndax tamit loolu ban message ngay lancé ñi nga xamante ne ñooy soxna yi am dañuy ñëw def màggal gi yaakaar ne ay solo la alors que màggal gi ni ko sëñ bi wootee bu ñu defee ko ah sama mbokk jigéen maa ngi leen di wax ñu sol lu jot di def lu ñu leen digal comme niñ ko waxee dëgg nga jógee Dakar Dakar nga jóge ñëw fii màggal si bu mel ne am na loo xamante ne bëgg nga koo lancé jëm ci ñi nga xamante ne ñoom bokk taalibe yi ci comportement yoo xamante ne sëñ bi diggee na ko ñu ngi doxee waaw loolu dëgg la parce que Touba boo fi ñëwee da nga war a sol colin gu jekk toogin toogin bu sell tamit dem ci waañ bi mais man moom sama appel lenn rek la chauffeur yi quoi accident yi bari na nañ daw ndànk dal ndànk ñu xam ne màggal moo ñu andi bu paree kenn ku ne ñibbi waa si kër te képp ku ñëw yàlla na la Serigne ba taxaw wëllu la ba nga ñibbiwaat si jàmm. pour yow ndax jàpp nga ne euh, euh, li nga xamante ne moo koy andi moom mooy dañuy yàkkamti bëgg a jël client yu bëri. waaw yàkkamti la yàkkamti la parce que dañuy gis benn chauffeur boo xam ne day profité si événement bi pour ñu bëgg am 3 voyages 4 voyages ba pare en même temps chauffeur yi benn la ñuy doon du ñu doon ñaar du ñu doon du ñu doon ñett daal loolu moo tax soog daal bëri na franchement su ma ñoon ñu daw ndànk dal nank wax nank parce que tamit yoonu jàmm sorewul voilà donc jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp saa su nekk fi nga xamante mooy Tawfekh Production dégg ngeen mbokk taalibe yi li nga xamante ni wax nañ ko jëm ci bés bu sell bi nga xamante si lañ jëm gis ngeen li nga xamante ni moo li nga xamante mooy côté ji waaye tamit am na ñoo xamante nga xamante ni moom mooy comportement yi war a am ci biir dëkk bi si biir jumaa ji waaye tamit chauffeur yi nga xamante ni nañ message ñu daw ndànk li xam ne ay nit la ñu yàpp donc ñu tàmmonte li moom mooy mooy euh, condition ak yi nga xamante ni wax nañ leen ko ngir ñu mën a euh, euh, daal di li nga xamante ni moom mooy lii di code de la route ngir bañ a andee accident ci biir dëkk bi ci biir événement bi donc wéy leen rek di ñu topp ci li nga xamante ni moom mooy Tawfekh Production pour les besoins du Magal Touba édition 22 donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ñoo nekkoon ci technique bi ak ci réalisation bi donc di jaajëfal leen jox yeneen jotaay ci li nga xamante ni moom mooy les besoins du Magal de Touba édition 2022 jërë ngeen jëf bu xaybati ja anna allah